ana ah, mu ngi mujjee seen réunion bi xanaa aji de fati nam daan def rek aji de ni mu nekkee yéene ko ci bàyyi waaye nag mag mu réew day mooy gone gu réew te xam naa ni de sama jëkkër bu demoon mission kër gi naa fi ñëw def fi une semaine lijjanti ko man ak aji ba mu saf sàpp ci kër gi parce que li nga ko may dafa ëpp man bu dul dara rus naa njabootam gi waxuma dara waaye maas mii rek biñ toogee di réew réunion rek dafa rus a rus a rus ndeysaan comme jur xoolal moom daal comme yàlla ak yàlli doom ju jigéen ji nag moom fii nga toog fii la toog hmm. di def watam watam kooku moo coupé kooku moo la mu xoolal moo yaay ji texte tiis man musumaa gis lii musumaa gis lii léegi nag yow nga toog di ko seetaan lu ma ciy def waaye li ma leen laaj mooy leen sen séet bi hmm. nan la ñëwé koku de xolal hmm. man dama ko ragal sax nak nday amita dara xewagut lan ndax bi ñu toogee di wax la ilaha illallah ki de la damañ damañ ñe ki man hee ba man may lox ñak toy xep ngeen tok moom muy damañ damañee ki yaa ngeen bayiko ci <laughs> yo ki rew na de alaykum néeguñ la maaleykum salaam ngay damañ damañ ay mag. Ah. li ci goro bi yépp ci moom. damay def gorom daal la la bëgg a def. Ah. ah. réew ne nag am na waaye na yow nekkal noonu rek en tout cas daal xam naa ni li mu nekkee moom seet bi xaw ma nu mu tudd mu jóge mel ni mu nekkee yéen ko ci baax. jaru ko billaay mag gi mënu nga maa bàyyi rek ma ñëw ci kër gi. du ko jar leen ñëpp. du ko jar yombalal naa ko seet daa xanaa xamoo leen yéen man sama rab sama tur lay bañ daf may xëcc. ngeen ne noonu dangeen a rafetal toogaay noonu respecté distance ne ci man ngeen di dugg yow moom ngay def ak say verre ngay mel ni docteur Moussa. Eh, eh may ma ma ñëw yow Sadio Ndiaye may ma ma ñëw. balaa maa dee nga ne yoo yaay dangay jaay di ma bëgg bëgg lu mu soo baax bëggoo ma bëggoo sama goro waaye man safu ndax man sama goro dama tippoo damaa bëgg sama jëkkër moom na ma nobee te bëgg ma e loolu dama koo ragal yow nga ne yaay kan sax yow xamoo ma soo ma xamul danga may laajte man maay Ndeye Amy capable coupable criminel raykatu nit maa ngi nii toog te kuy nëbb du ko wax ndeysaan xam nga koo may fàttali Sadio Ndiaye si mbëkkat mere naa la nag waaye nag sant naa la tuuti ndax sa ñëw ci kër gi permettre na ma man mi nga xam ne yàgg naa rêvé jàkkaarlook saajo njaay tey jii nga may ma ko ma eh, jàkkaarloog moom nii ah. kii réew yow réewoo sax gone ko réew nag day moytu mag mu réew boo ci delluwaate ma nokku la ba ngay bëgg a dee réew ba dof xanaa kon dangay dàggu ci frigo bee xool ndox nag bu fa gën a sedd nga jël meew daal di ko ci xóoya ndànk jox ma ma naan ma mën laa jox autorisation nga mën maa nokk gis nga bëre xale koy def waaw xale bu fere comme man dëgg du neex frère sax nga ne noo tuddati sa tur dëggantaan. kan sa frère. dama ne nga ne noo tuddati nu mu tuddati sax. Ndeye Amy laa tudd. waaw. criminel capable rey ko nit maa ngi nii toog ñaari yoon laa la ko te dootul lii ma la wax na bàyyi ci xel dégg xam nga dangaa ñëwoon pour xam booy te beneen yoon ma conseillé la. comme da ngay jaay seytaane nee nga yow yaay dangaa ñëw pour loo xam si boo ñibbi nga yóbbaale gis nga kër boo fi ñëwee balaa ngaa yor sa làmmiñ di wax wala di tudd kenn na nga fexe ba xam ki ngay tudd mooy kan. man nga buggoon xam man ngay laaj. maa ngi noonu yëgal leen seen waxtaan. boo ma dépassé boo ma dépassé la de li ngay réew waaye kii xam na boppam war nga ma bàyyee kii. billaay jaru ko. nii la de gis nga ko nii de. man maa doon ñaan naan damay xaar dem xaaratuma maa fi ñëw def une semaine lijjanti koog moom ba mu saf. kii aada nii la ko fi def ba ñépp man damaa tiit bay lox laa la wax te nag sax nag xoolal damaa bëgg sax nag une semaine yooyu ngay wax nga toog ko sa kër. maa ngi dem de waaye maa ngi ñëwaat.

maas dafa tapeta tapeta tapet ba gis nga maas keroog bañ may réewle laa la wax saa su ba dafa uti wàllu ndax ragal. looloo topp maas yow bàyyi ma maas man. bàyyi ma maas man waxi maas laa waxul muy yëngi yëngi di yëngër yëngër yi mel ku ñuy waajuru si noonu. njaboot am ana de avant ngeen di judd fii amul lu ma wala ci kër gi damaa dëgër de damaa nekk diggante yëmbal Medina terrain Liberté 6 waaye gis nga ana bay nii dafa bon bon bon gis nga kottam gi mu kott wowam gi mu wow kii nga gis nga ni nga ko gisee nii mu mel ne ndaama nii bon a ko tax a tàcc ana ñooloon na de dafa bon moo mau ma leneen yow. sa apa mën a bu la ñëw de. sa papa def ko géetal bi di. ndax yi laa xanaa yow doo seetlu Anna Mbaye ndiggam li. yaa ma seetlu naa ko moo tax du mën a dox man des fois damay laaj kii est-ce que feeru am feeru ndigg. Anna Mbaye nii de balaa nit a jàngaarloo moom kii bonam gi dafa wër àdduna de sa bàyyi mën a bu la ñëw de kii nga xam ne dafa bonam bonam bonam bon ba. xarit toog moom gis nga moom la mag waaye war ko fulla moom leen dafa bon moom gis nga ko moom it ni mu ne dogal dogal di noonu mel ne mangu dellu noonu dafa dellu moom dafa dellu moom maye atam waxu ko de xam nga lu ma bëgg waxoon na ma teral loolu laa fu ne aw mën na boog yow doom sama natt dina la ab lal. ay yaa loolu gis nga ko defee yaa man des fois sax damay rus néegu kumba bi kumba bës jaxasoo. bi ma ci woowee bi ma ci woowee léegi sax dama yaay sax dama rus ndax maas dóoru fayul àttewul xeex fekk jom la rek kaata ñàkk jomu maas man nga xamul fan laa ko mën a tibbee nag man waxi maas ci boppam man laa waxul ndax ñàkk na jom ba dépassé man waaye yow xoolal ci man ndax man kumba maa ko bëgg xool ci man xoolal sama bët yi dee ma xool di xool sama bët xaj loo mën a àndal loo mën ma wér te yow kumba di ma ba ma ànd mbay njabootam ba ma ñoom ñu mel ne daa xase mbayaat ndayam jël ma leen paquetel ma leen bàyyi leen noonu bu togg jotee mu xëccoo waaj bi ne diig cib siisam benn siwa lay toggee maa bañ ànd mbay